maam ma xam yaag am di xaar nga ñëw ñu ko xam amoo moroom baay Abdulaay góorgóorlu mooy tax nit di xam cërëm ci suuf ndeem nar na ndam kii nag ndamam jiit nag juddoom amoo moroom baay Abdulaay góorgóorlu mooy tax nit di xam cërëm ci suuf ndeem nar na ndam kii nag ndamam jiit nag juddoom amoo moroom baay Abdoulaay fu doomu soxna mus fanaan dem nga fanaan falam fanaan booleeg sa cër ko song daan amoo moroom baay Abdoulaay doomu soxna mus fanaan dem eh. nga fanaan falam fanaan fu doomu soxna mus fanaan dem nga fanaan falam fanaan booleeg sa cër koo daan amoo moroom baay Abdoulaye mus fanaan dem nga fanaan falam fanaan booleeg sa cër koo daan amoo moroom baay Abdoulaay ndonal limaamu ak isaa képp doon raw basaa ndax yàlla mooy ki ah. di saa amoo moroom baay Abdoulaye ndonal limaamu ak isaa képp ka doon raw ba saa ndax yàlla mooy ki di saa amoo moroom baay Abdoulaye defar moo tax nga màgg doonu gar suhlo nga banyi ngir nakar, amo morom bay abdoulaay manon nga wote ngur konit nyudon ko nit di daw hmm. dawal ngir begarau amo morom bay baay mënoon nga woote nguur ba faw ko nit ñu doon say dak di daw di la dawal ngir bëgg a raw amoo moroom baay Abdoulaay mënoon nga xëy woote sa kër ñu lay wayal maam ba fajar ndax ku la xam. moytu sa mère amoo morom. Baay Baay hmm. Abdoulaye. waaye nga jaay bànneexu fii. ndeysaan. dëkkee di wër yër sugu. aloo di xeex di bañ rek ku nu noot amoo moroom baay Abdoulaye taloo sa kër taloo njaboot taloo sa yëf ndax ñi nga boot di xeex di bañ rek ku nu noot amoo moroom baay Abdoulaye taloo di lekka di nelaw taloo xawaare dëkke daw ngir rek njabootu maam ngi raw amoo morom baay Abdoulaye taloo di lekk di nelaw taloo xawaare dëkk daw ngir rek njabootu maam ngi raw amoo morom baay Abdoulaye mbokk yaa tax dëgër saytaane yaa tax mu jëfur diine ji yaa ko far kulóor amoo baay Abdoulaye lun mën a yaa nu saaf maam sunu xol yi yàlla def fii sunu cofeel ci yow du kaaf nga ni amoo moroom baay Abdoulaye nu nu naan ndax man nga ko fexeel nu àgg sañ nga ko jébbal nu njiin ndax miin nga ko amoo morom Baay Abdoulaye fik fik jangay saf ñu ngi nga taaj nu say bagaan sun ànd bi dem ba jinaan amoo morom Baay ku am keneen jëlal ñu jël Baay Abdoulaye zil kamal am sa kay doy na lu mën a xew maam nang fi toog ñu ngi sa keppaar duñ fi jóg fa seenewun jóg fi nu teeg lu mën a xew maam nang fi toog ñu gis la keppaar du fi jóg ba seene wun jóg fi nu tee amoo morom baay Abdoulaay wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah amoo morom baay Abdoulaay ya rabbi salli man ala xayri nabi mursila toog fi nu lay xool xiwalaan amoo morom baay Abdoulaye jërëjëf